la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ngi jottali ay nuyoo yu sell ak ub siyaar ci jëwriñu sëñ Tuubaa ji di Cheikh Modou Mountakha ñuy ñaan si doole Cheikh Ibrahima Fall suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba yéene yi mu am liggéeyal ko Sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul liggéeyal ko njabootu Sëñ Tuubaa gépp sunu borom kattanal ko ba mu jëf si lu kawe njortam di jot li nuyoo sëriñam di Fall moom sëriñ Modou Mbenda di jëwriñu maam Seera Fall di sa murit boobee nga xam ne dégluwul lu dul jëmmi sëñ Muntaxaa xoolul lu dul jëm Cheikh Modou Mountakha xañtuwul lu dul bëggug Cheikh Modou Mountakha nee na fam ne woon ma nga fa rek ma nga yeesal ak taalibeem ak di ko feddali fas yéene lu sëñ Tuubaa digle rek mu ànd ak njabootu Cheikh Fall gépp nu def ko mu yónnee woon nag rakkam yii di ay taalibeem te Serigne Cheikh Serigne Saliou Farsaw nekk sa bopp bi mu yónnee woon ko liggéey bi nga xam ne moom la doon taxawu ngir mu ñëw jébbal ko sëriñ bi te xam ni ab liggéeyam la lépp sëñ Muntaxa yaa ko moom sëriñ baa ngi lay ñaanal bu baax xam naa kàddu sëriñ bi si jëwriñ de sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng mi nga xam ne moom la tànn def ko muy jëwriñam sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng am ngànt yebal sëriñ Saliou mi nga xam ne mooy ab taalibeem di rakkam mu ànd ak mbooleem njabootug Cheikh Rafal gi muy buntu kër yi séq kër Cheikh Rafal yëpp ñu teew fi wala seeni ndaw teew fi ñuy jébbale eh, eh, addiye yi mu yebal sëriñ bi xam naa kàddu yi dañ koy jox sëriñ Saliou Fall mu jottali ko waaye ñu ngi ñaan sëriñ bi mu nangul nu ko barkeb Cheikh Ibrahima Fall te lépp rek na doon saw fan gudd na doon sag wér na doon kattan na doon tawféex goo xam ne loo naalal sëñ Tuubaa rek yàlla na nga ko àggale ba def si lu kawe sa njort Mbàkke salaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum. asala Serigne nee na asalaamaaleykum. Mountakha Serigne baa ngi lay nuyu. Eh, Cheikh Modou Mountakha Serigne baa ngi lay nuyu. moom njabootug maam Cheikh Ibra gépp. gépp. di ko defee nag na mu ko defee woon daaw rek. di ko defee na ko defee daaw rek. daaw si waxtu wii. dafa mel ne si la nu ñëwoon. dafa mel ne si la nu ñëwoon. jébbale si liggéeyub addiye bi. jébbale si liggéeyub addiye ji. loolee la defaat ren jii. loolee defaat ren jii. waxoon Serigne Cheikh ne na ko dikkal. waxoon Serigne Cheikh ne na ko dikkal. waaye sëriñ Cheikh am ngant. ne ko moom mu ànd ak mbooloo mi ñëw si sëriñ bi jébbal ko liggéey bi liggéey bi nag mbàkke mi ngi nii di ab lim sëriñ bi ne daa ñeme wut tudd lim bi waaye kayit waa ngi nii na waaye kayit waa ngi nii ñu lëm lépp si biir ndax di joxe addiya ko tudd. di ko tudd. ku ne di ko dégg. ku ne di ko dégg. day am lu muy nuru. day am lu muy nuru. te loolu warut. te loolu warut. nun li ñuy joxe. nun li ñuy joxe. dañ ko war a joxe rek. dañ ko war joxe rek. sëriñ bi rek xam ko. sëriñ bi rek xam ko. ak ki ko ko jox. ak ki ko ko jox. waaye yoonu keneen waru cee. waaye yoonu si. mbaa ko sëriñ bi xamal. mbaa ko sëriñ bi xamal. moom mi ko moom. moom mi ko moom. mi ngi lay nuyu nag lu bëree bëri. nee na sëriñ baa ngi lay nuyu lu bëree bëri. di la ñaanal nag. di la ñaanal it. nga yàgg fi lool. te mu ànd ak njabootu Cheikh Ibra gépp nag. njabootu Cheikh Ibra Fall gépp nag. ñu ngi nii teew ñu ngi nii teew. amul genn kër gu des. amul genn kër gu des. bu ñëpp ñëwee rek. ñëpp ñëwee rek. kër Cheikh Ibra gépp ñëw na kër Cheikh Ibra Fall gépp na. te ñëpp a ngi nii ñëpp ngi nii. buntu kër bu ci ne. buntu kër bu ci ne. kafa mag kafa mag. mbaa ka ca topp. mbaa ka sa topp. ñëw na ñëw na. niit ni la ñu ànde woon. niit la ñu ànde woon. ci liggéey bi ci liggéey bi. ba liggéey bi mel nii nga bëgg. kon nag bi nee na. kon sëriñ bi nee na. nga dolli koo ñaanal nga dolli koo ñaanal. ndax fee ne day. bàyyiwu ko fa dara bàyyiwu ko fa loolu sa ndigal loolu sa ndigal rek bëgg koo jëfee rek bëgg koo jëfe rek bëgg dégg sa bëgg a déglu sa ndigal ba ànd ak waa kër Cheikh Ibrahima ñi ba ànd ak waa kër Cheikh Rafal ñi jëfal la jëfal la ba na ko bëggee ba na ko bëggee mu amee ni mu amee nii loolu la sëriñ bi waxoon ni. loolu la sëriñ bi wax ni. nañ ko jottali sëriñ bi nañ ko jottali Cheikh Modou Mountakha. bu nu demee bu nu demee. nag. ñii fi ne ñëpp nag. mooy kër gi rek mooy kër gi rek. ndax benn buntu kër desul. ndax benn buntu kër desul. kon nag ñaanal nu Mbàkke. kon nga ñaanal nu Mbàkke. nu amug wér nu amug wér. te te fan yi gudd. te fan yi gudd. ba li ñu la bëgg a defal. ba li ñu la bëgg a liggéeyal. ak yéene yi ak yéene ji. lépp yàgg lépp àgg. noo ngi sàkku ci euh, njabootu Cheikh Fall gii fi nekk. noo ngi sàkku si njabootu Cheikh Fall gii fi nekk. na ko daan waxee rek. na ko sëñ Saalu daa waxee rek. dafa bëgg nu ñaanal sëriñ bi. dafa bëgg nu ñaanal sëriñ bi. yéen ñëpp. yéen ñëpp. ngeen tibbee ko ci seen i xol. ngeen i xol. ñaanal Cheikh Mountakha mi. ko fi. sunu borom bàyyi ko fi. guddal aw fanam. te wéral ko lool lool lool. te wéral ko lool lool. loolu daal maa ngi koy sàkku ci yéen. loolu daal mi ngi koy sàkku si njaboot gi. waxtu wu nu masaa ñëw fi waxtu wu nu masaa ñëw fii. lii dinaa na dana ko sàkku. te yaakaar naa ni bu ngeen ko ñaanee de. te yaakaar bu nu ko ñaanee. li nu bëgg danañ ko am ci sëriñ bi. mu wér rek te gudd fan. mu wér rek te gudd fan. jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke. gaa yëpp a ngi nii nag di déglu sa ndigal rek lee moom àgg na waaye leneen lañ bëgg sonn nu tàyyiwunu dàcc ñu noo ngi déglu rek sa ndigal faal boo noon suba rek soobu leen si leneen ndigal wallaahi laasim kon nu soobu si sa ndigal rek la ñuy déglu ndax xam na ni mooy sunu njariñ jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke <laughs> waaw sëriñ bi nee mi ngi sant rek sëñ sëñ Muntaxa waaw <laughs> sax dakk nee na nee na mi ngi sant goo xamante ni gii dañ si sax dakk rek nee na ñu sant sëriñ bi dañ leen di sant sëriñ bi nee na dañ ñuy sant sëriñ bi di sant maam Cheikh Ibrahima Fall ak njabootam gépp nee na ak cant rek lañ leen ameel nee na nit bu fabee la ko gënal jox la ko nee na ak cant rek sa des nee na ak cant dong lañ leen amel ak ngërëm ak di leen seere itam di leen seereel sunu yeesal gën a yeesal sunu jaayante ak di leen seereel sunu gën a yeesal sunu jaayante ci sëriñ bi ñi koy seereel. ndax noo war a jiitu si ñin koy seereel. ñu ngi koy seereel bu baax a baax. nee na mu seereel yeesal gi ñuy yeesal suñu jaayante. ak fedd li gi ñuy fedd li suñu laxasaay. nee na ñu ngi koy yeesal. te fas yéene ko ànd ak nun nee xolam sedd na bu baax. nee na xelam dal na bu baax a baax nee na njortu leet gën naa rafet bu baax ngir sunu jëmm yii nee na sunu jëm yii tax na njortam gën a rafet bu baax a baax nee na jërë ngeen jëf ci dolli loolu waaw sëriñ bi nee daanaka jëmmi taxawaay bi xamul lum si dolli lu dul ak cant rek mbakki ak gën a yeesal suñu jaayante rek gën a feddali suñu laxasaay rek fas yéene koo gën a ànd ak noonu rek loolu rek a fi ne mbak alhamdulilah mbakke jërëjëf mbakke nee na ñu ngi ñaan rek nee na gannaaw suñu borom mooy def mooy dindi. gën noo gàttandu ak tawféexam ak taw feexu sëriñ bi nee na loolu rek mooy ñaan gi gën noo gàttandu ak taw feexu sëriñ bi sunu lépp biir ak biti sunu lépp tey ak ëllëg nee na loolu rek mooy ñaan gi jërëjëf Mbacke da nga fi yàgg lool te wér nee na mi ngi nuy bëgge rek nee na di nu wettali ko rek. nee na loolu rek mooy digganteem ak nun nee na waxtu wu ne mi ngi nuy bëggee nee na waxtu wu ne mi ngi nuy wettalikoo si li nuy wut te mënuñu koo ñàkk nee na mi ngi nu si wettalikoo di gën a ñaan rek ngartanuk sëriñ bi nanu sëriñ bi gàttandu amin te mu gàttandu nu boppam te wommatal nu boppam waaw sëriñ bi gàttandul nu boppam te wamatal nu boppam sëriñ bi nee jërë ngeen jëf waaw nga yàgg fi lool te wér yàgg nee na sant na bu baax mbak waaw noo gën a sant nee na xolam sedd na guy alaay mbak noo gën a sant ne xam ne suñu yaakaar tey ëllëg dara génnu si sëñ Tuubaa nee na liggéey bii nu wees it nee na doy na firnde si lépp si lépp lu jëm si ak defar jëm si ab liggéey doy na firnde sëkk nee na kenn sax waaye nag day yeesal day bégloo day dolli yaakaar alhamdulilah laa ilaha na ñëpp tàllal loxo yi baa ngi ñaan laa ilaha illallah amin لا إله إلا الله آمين آمين لا إله إلا الله آمين آمين لا إله إلا الله آمين آمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله